sa mission régalienne et son engagement pour la lutte contre le Covid-19, la mairie, la commune de Thiès-Est s'était engagée à jouer sa, pleinement sa partition. Et depuis le début, vous avez vu les actions qui ont été réalisées et qui ont été posées. Et aujourd'hui, c'est un, un, tournant majeur aussi et un, un acte fort que vient de poser le maire Pabassir Diop à l'endroit des populations de Thiès-Est, mais surtout à l'endroit des familles impactées et des familles qui aujourd'hui sont, fra sont frappées par, euh, euh, sont, sont touchées par le virus qu'on appelle le coronavirus. Alors c'est dans ce cadre que cette cérémonie très sobre, vu la situation, que le maire a convié les populations et la presse pour présenter quelques actions qu'il va faire aujourd'hui et qu'il va continuer à faire pour euh, encore magnifier et rendre concret sa, son engagement pour la lutte contre le Covid. Je vais donner la parole très rapidement au président de la commission sociale qui, depuis le début, coordonne toutes les activités relatives à tout ce qui est volet social dans la mairie, allant dans la lutte contre le coronavirus pour faire une petite introduction. Monsieur Sissé, Sissé, LHCCB, président de la commission sociale de TSS. waxal mën a dégg suñu message donc euh, El Hadj Cissé président commission sociale commune Thiès Est comme ni kon monsieur le maire bokkum waxee donc euh, comme ni ngeen ko xamee depuis bu yàgg ba tey bi feebar bu diggee Sénégal donc euh, la commune de Thiès Est desul gannaaw parce que mooy commune bi nga xam ne moo ëpp ci Thiès muy commune bi nga xam ni sur le plan de la population je crois que moo ci ëpp loolu moo tax monsieur le maire ak euh, bureau municipal ak conseil yi ak l'ensemble de la population des desuñ ci xeex bi donc euh, di commencer di sant ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci ci xeex bi ba mu commencé ba tey je crois que le maire comme ni mu ko daan waxee am na ay partenaires yu bari yu ci jàpp am na ay bonne volonté yu ci jàpp ñu xam leen ñu bañ leen a xam pour que vraiment feebar bi nga xam ni moo gàllankoor réew mi mën a dem kooku aussi monsieur le maire mi ngi sant ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci. donc xanaa dañuy jël kàddu rek di ko ubbil en tant que commission sociale su ko defee dina gën a dugg ci détails yi nga xam ni moom la na ma def euh, ànd kook équipe bi yëpp ak comité bi nga xam ni moom moo fi nekk dépuis bi mbas mi commencé ba tey donc euh, comme ni ñu ko xamee rek et population yi am nañu feebar am nañu sonn kon euh, ci xeex boobu loolu moo waral tey monsieur le maire bëgg a lancer loo xam ni dafa jëm ci askanu Thiès Est muy dina jàppale ñi nga xam ni jot ñoon am chance bokk ci liste yi nga xam ñoom la ñoon ciblé ak ñi nga xam ni bokk ñoon ci RNU ñoo ñu tey monsieur le maire na ma def lancement bi pour jàppale leen euh, comme ni ngeen ko gisee sama gannaaw mooy ceeb bii nga xam ni mi ngi fi je crois que après dina dem ci askan bi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw ak ñi nga xam ni dañu impacté à cause ci feebar bi nga xam mooy coronavirus donc li ci topp également comme ni ñu ko waxee ci Thiès gis nañ ni également eh, feebar bi bi mu duggee ba tey alhamdulilah parce que ñi ngi dégg gox yu bari yu bëree bari mais Thiès Est fan yi ñi ngi dégg mi ngi fi commencé dugg loolu moo tax monsieur le maire mobiliser équipe bépp ak conseil yëpp ak partenaires yëpp ñu taxaw xeex feebar bi nga xam ni donc euh, mu ngi commencé di dugg Thiès. mina seytaane rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp seen teewaay. man madame Diouf Binta Ba laa tudd je suis assistante sociale responsable du service social au centre de santé dixième et dans le cadre de cette euh, lutte contre cette pandémie je suis la responsable de la cellule de prise en charge psychosociale du comité donc dama ñëw ci ndigalu suñu médecin chef de district docteur Moustapha Faye moom moo moo ma yebal pour ñu ñëw teewe lii nga xamante ni monsieur le maire Thiès Ouest Thiès Est du moins maa ngi lu Thiès Est Pape Bassirou Diop sumb na ko tey tàmbali pour def ko à l'endroit des population de sa zone de couverture loolu nag defe naa lu ñuy féddali kese la mairie Thiès Est wane na ni santé compétence transférée la ku nekk xam na ni ñun waa Kër Docteur faj rek la ñu mën lépp leneen lu weesu ci faj bu ni ci collectivité yi dimbaliwul du dem ñun nag fi mu nekk nii vraiment lii ñu gis nii saa ñu réjouit vraiment du fond du cœur le fait ñu gis collectivité locale ñëw jàppale ñu ci xeex bi comme sànq ni ko bokkum waxee xeex bi dafa bëree ay pàcc ku nekk xam na ni du faj kese faj baa ngi ci dund baa ngi ci leneen ak leneen mi ngi ci bu jëmee ci wàllum dund bi bi yëf yi di dooree door ku nekk xamoon na ni ni bépp euh, personne dépistée positive ay contact am dañ lay jël dem confiner la si hôtel buñ la confiner si hôtel sa prise en charge intégrale ñoo koy yore ndékki ba añ ba reer ba faj ba yépp ñu dem nag ba jëmmi jamono ñu naan bu jamono soppeekoo tamit da ngay soppali doxalin bu nga xamante ni dafa méngoog li soppeeku ñu dem ba jëmmi jamono ñu xamante ni nii fii ñu toll nii ñu di jël euh, njaboot lëmm ñu jël di leen yóbbu si hôtel loolu moo tax ñu ni léegi stratégie léegi bu bees bi mooy que ni ñi ñuy confiné personne dépistée positive seen contact yi ñuy confiné yëpp ils seront confinés à domicile mais confinement à domicile boobu tamit dafa laaj ay mesures compagnement comme ni ko boo bookum waxee nit ki boo ko nee toogal du toog noonu rek di ndox bu toogee dina war a am lu muy dunde te loolu muy dundee mooy lii nga xamante ni moom la monsieur le maire sumb tey fas yéene ko def à l'endroit des population de sa zone de responsabilité. li dañu wax ne on s'en peut-être c'est pas pour stigmatiser mais bi ñuy def statistiques yi jàpp nañ ni mairie bi ñuy def euh, cartographie bokk des personnes yi ñu am ñu dans le district de Thiès gis nañ ni mairie Thiès si. localité yi gën a touché la bokk loolu moom c'est pas pour stigmatiser mais bi ñuy def suñu cartographie gis nañu loolu kon boog lii vraiment ça vient à son heure on s'en réjouit ñuy ñaan peut-être am na yu ñu jotoon a jot yu njëkk yi ñu jotoon jot tey on avait non problème parce que yooyu pop lii ñu confiné woon dañoo bëri woon ba nga xamante ne am na ñu doon des à Dóni sincèrement am na deux fois yi ñu fi jot dotation mais doyewul woon. peut-être nag comme li ñu wax nii lii c'est un ñaan nañu yàlla ñu tàmbali si bisimilah yeggale alhamdulilah rabbi alamin lépp lu ngeen si séentu yàlla na leen si yàlla jàppale ba ñu def ko yàlla ni ngi koy jox tamit yàlla nañ koy jëriñoo si jàmm te tamit yàlla yombal lépp yaatal ko ba mu mun a wër ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi koy itteewoo defe naa sur ce on remercie vraiment toute la mairie on remercie au nom du maire. nu remercions tout la réalité de Thiès-Est ak yeneen naataangoom yëpp parce que ñeneen ñëpp ñoo ngi yëngatu ku nekk ak si sa fànn mais liñ naan ko aaye wal sa moome comme que tey moom moo aaye <laughs> ñoo ngi koy remercier di ñaan yeneen naataangoom yëpp topp si ay tànkam wasalaam merci beaucoup. yaare ak di profité wu ci julli gi di ñaan rek yal na yàlla barkeel allahuma yëpp. jéggal nu sunu bakkaar yi yëpp te yàlla defal nu euh, xéewal yu bëree bari yàlla jëlee fi tam lii nga xamante ni muy li nga xam moo lëmbee àdduna bi muy feebar bi muy coronavirus bi ñuy wax yal ko fi yàlla gaaw jëlee ndax itam tënk na àdduna bi yëpp donc ginnaaw bu loolu passé pour ñu dem rapidement rek di sant aussi la commune de Thiès Est vraiment ci seen ci engagement bi ñu am ak détermination bi nga xamante ni moom lañ taxawee depuis bi nga xamante ni le deux mars bi affaire bi duggee ci Sénégal ba nëgë la commune Thiès taxawuñu benn yoon donc euh, y compris le bureau municipal l'administration taxawuñu ak commission bi nga xamante ni moo nekkeen fii donc ma doon ko coordonné commune commission comité local bi euh, donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax parce que depuis booba ak nëgë ni dafa naa ni nit ñi ñu ngi gis ci terrain bi def nañu ay formation ay jeunes yoo xamante ñoo doon dugg di sensibiliser pour ci commune bi def nañu aussi ay kit yoo xamante ne doon ko joxe à travers la commune de Thiès Est lu war a mat ay sept cent cinquante boutiques yoo xamante ne bu ci jox nañ la ay kit délégué de quartier comme ñoom it dafa nekk ay lieu de rencontre yoo xamante ne nit ñi dañ fay dem délégué bu nekk rek jox nañ la kit boo xamante ni au moins nga teg ko sa buntu kër parce que protection la te defe naa ni loolu moo ci ëpp solo parce que dama ko wax keroog bi préfet woote woon ma ne ko bu nu jëlan ceeb bi ci sa àdduna bi suukar si ak lu mën a doon diwlin gi di ko di ko jox nit ñi te mesure barrière yi respecté wuñ ko ça yi à rien parce que nag Sénégal bu ñuy waxante dëgg. dañuy sonn nii rek nag loolu laa gis mais tegaguñu ci yoon bi nga xamante ni par rapport les euh, euh, pays yi nga xamante ni ñoonu ëpp doole boo ngeen xoolee ni ñuy respecté mesures yi defe naa ñun ak àgguñu foofu boo dem ci grand place yi dam yi ñu ngi toog groupé wu nga dem ci terrain yi xale yaa ngi fubal nga dem faneen ak faneen te rassemblement la ñuy bañ fee kon boo leen buñ ko dee def ba pare nga leen di jox ceeb ak yooyu te amul sens dañoo war a fexe wax naa ko préfet nañu fexe ba au moins ñu mën a res nit ñi respecter barrières yi parce que nag pays boo xamante ni nag amuñu leen moyens qu'il faut te ba pare li affaire bi gën a bañ ñoo ngi koy def boole coog dafa mel dañ leen di encourager ko te nag Sénégal amagu fi xiif bu fi sonalegul nit ñi à ce point ba nga xamante ni actuellement boo xoolee euh, pourcentage bi yëpp fi mu ne. lu ñuy ceeb la ñuy laaj lu ñu dundee aw ma tey lu ma sóor aw ma tey lu ma nàngam bien vrai que aman na fi parce que xam nañ ñun Sénégal nag wax dëgg yàlla pays sous-développé la la mais ak nii nga xamante ne la affaire bi mel mesure barrière yi autorité yi imam yi chef religieux yi ci lañ war a taxaw pour que nit ñi respecte loolu chef de famille yi jël tam loolu ay responsabilité ci seen njaboot yi mais boo demee ci terrain yi terrain ruq boo fi dem ma dell police bi ngi def liggéeyam bu baax vraiment dañ koy félicité guddi gis nañ ko wër fay mais man personnellement démb rek maa ngi ànd ak sama chauffeur parcelle mais gis police yi di dàqanteeg booy yi booy ma woo benn booy ba mu ñëw man ko yow ñaataan nga mun ma temps man man ko mais da xanaa doo nit parce que nag dafa am loo xamante il faut ngeen éviter ko bon bien vrai que couvre-feu ñu bari xamuñu ko parce que 88 la fi njëkk am mais nag bu demee ba nga xam ne nag nga gis tey lii ngay xool télévision. wala say mbokk nekk extérieur di la woo di la wax li xew ñu leen di wan nombre de décès yi am par jour pendant vingt quatre heures nga dégg ay deux mille et quelques personnes affaire bu du caaxaan c' est que il faut que ñu gën a accentuer euh, kii comment dirais ñu gën a euh, penser ci li nga xamante ni mooy lii régler problème bi surtout les euh, services de santé ñu ngi def lu ñu man mais bu ñu leen dimbalul aussi du dem bu ñu leen dimbalul dem nu on a beaucoup la commune de Thiès Est comme li ma la wax ci ba mu commencé ba nëgg ni ay équipement sanitaire lañ njëkk a joxe ci poste huit postes de santé yi joxe nañ fi ay lal ci début ba commencé gel yi commencé eau de javel yi lu ne def nañ ko thermo thermoflash après ci biir yëf yi lañ ko jox chaque poste de santé doté nañ ko thermoflash y compris euh, la maire ak euh, préfecture devant le préfet loolu lépp ci xeex bi la mais nag su fekkee dañ koy def ba pare itam Euh, bu ñëpp bu kenn dee gas ñëpp di soli poussière dañu bari rek donc il faut que ñu gën a bàyyi suñu xel ci ni li war a régler situation bi il faut que les autorités religieuses ak ñeneen taxaw ci bon parce que bu ñu xoolee parce que ñu li ñuy fii def fii ba suba bu ñu ko doon wax ba bañ ne ko bi ci la ñuy profité def mandat bi nga xamante ni affaire dotation bi ñu daan def ci santé huit millions engagé nañ ko ba dem na mi au niveau de la perception loolu lépp ci xeex bi la bokk mais tam il faut que mu ànd ak lin ci war a taxawee. bon donc euh, bi affaire bi amee nag fii la moo nekkan suñu quartier général fii lañ doon yendu di léggéey ci commune bi depuis ñu wax ni état dafa am lu muy dimbalee la commune ñu nekk fi ñu di xaar parce que bi ñu xamee nombre bi nu famille bi nu war a dimbali xam nañ ni avec la population de Thiès qui fait cent cinquante cinq mille quelque quelques habitants. li nombre bi ñu jox mënul fexe ba doy boobu nag la ñu nekk nag di def euh, fu nañu koy tisser suñuy moyen ak noor nos euh, partenaire ñu fexe ba indi fi parce que 32 tonnes et quelques 32 tonnes et quelques ci ceeb ak 7 tonnes de sucre indi nañ ko fi amoon nañ fi ay tama ay yu euh, lu jëm ci jàppale nit rek defal nañ ko ba jot nañ ñuy joxe 480 familles yoo xamante ni avancé nañ ko ñi nga xamante ni. li état bi joxe woon duñ ci wan mën a jot donc mu ba des na fi fii ci ginnaaw mi ngi nii ngeen di gis trois cent soixante familles yoo xamante ni dina leen ko jox donc loolu boo ko calculer da ngeen di am presque huit cent defe naa xam nga loolu nekk na loo xamante ni commune Thiès Est jël na disposition yi def ko quatre cent quatre vingt génn trois cent soixante yi moom fi des donc fan yëpp ci loolu nekk di liggéey donc lii tey nag ñu ni démb bërki dem bi nu dajee ak euh, le préfet du département dont le médecin chef district ma nga foon ci la ñu xamal ñun leen nag dañoo bëgg ñuy xam di information à temps en temps réel pour mën a xam lu ñu war a def parce que nag mënoo dimbali nit te xamoo fu looy def mais cas yi ñu dégg bi foofu la ñu amee dégg ni à Thiès y' a 89 cas 88 ou 89 Thiès est en a 49 48. temps pour merci léegi ñu ni nag biñ ci la lande man ci la wax ñu ni am na famille yi ñoo xamante ne sax dañ leen a confiné ñu ne mieux que bu ñu amee ces liste là dinañ xam ñu ni ñu ci war a mën a jàpp ndax ki ñu tëj ci kër déjà moom li ki koy ki ne ci biti moo ko mën a dimbali bon te suñu commune la ñu nekk ñu nañ profité ci loolu xam na nañu ñaata ñaari quartier yi nga xamante ne ci suñu commune euh, ñu ngi leen mettre en quarantaine kon dafay jaar ñu teel a def loo xamante ni mu dem ci ñoom moo waral tey la ñu saisir laa indi euh, euh, information bi ñu réunir ci bureau bi ni nag de ce soir nan def tout dañ doon xaar naan lan mais xam nga koy dimbali dafa am loo xamante ni dimbal day gaaw moo waral ñu ni lu mën a xew nañu jël loo xamante ni foofu mooy defe ni 14 jours le confinement bi li li leen a def loolu lu bon bon lii de leen mën a yóbbu pour 14 jours ñu mën ci dund moo war a muy nekk ñaari famille yi pour jàppale leen ci. defe naa ne gis nga mën naa ko bañ a lim xam nañ ni lii di nga mën a xëy ndékki di nga mën a <laughs> togg añ pour mën a préparer reer ndax foo gis diwlin wala suukar wala meew gis spaghetti vraiment loolu te di ko xeeb di xaar nag di ànd ak yéen toujours rek di solidarité pour jéem a xool luñ ci war a mën a def incha allah loolu moom laa man des wax nañ joxe nañ 480 yu dem déjà uniquement doon xaar ñi nga xamante ni amuñu woon ci li par exemple joxe. ci état bi donc mu des na fi trois cent soixante yoo xamante ni dès demain dina mën a dem ci euh, quartier yooyu nga xamante ni ñi jotu woon a am tam loolu daal lañ defagul nga xamante ni kenn ku nekk dañ lay bàyyi ak euh, la nga xamante ni mooy sa domaine comme ñoom xool nañ ba xam ni jël nañu les mesures qu'il faut pour xel yi mën a dem dans les écoles ñoom euh, personnel santé bi wax nañ ko laa duñu mën a def lu dul ànd ceeg ñoom parce wax nañu ni jël nañu am nañu masque yi am nañu lavoir yi dinañu respecter distance yi nombre de classes yi dinañ ko réduire classe war na def quatre-vingts élèves wala dara ñu def ko à vingt élèves loolu aussi c'est quelque chose boo xamante ni mën nañ ko xool en attendant ba xam li no li parce que wax nañu loolu te décidé nañ avec le ministre gis nañu ñëw def lancement bi donc désinfecté nañu école yi depuis ce matin depuis bërki démb ñu ngi ci donc dinañ pare désinfection bi dès demain incha allah.